Moustapha Messere la tudd dëkk Touba di ndaw loo xamante ne toog muy dox la def muy métier am politicien boo xamante ne xamul jàngul jongul waaye nag lu nekk ma nga ca bu teyee mi ngi ci Abdoulaye Wade bu ëllëgee ci Macky Sall wala ci Idrissa Seck moom daal luy dem rek lay bañ a gis waaye ndoxum Touba bi nga xamante ne ñëw na ci ndigalu Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu ko déggee sëriñ bi ak waa Touba ngir rek dina leen indilaat ndox mu neex ca Touba moom Moustapha Messere mi ngi def ay vidéo di def ay manipulation corruption ak di diaboliser moom dafa mel ne ndoxum Touba ak ñëwam naqari na ko lool ndax it dafa bari ñu nekk Touba ñoo xamante te ne dañuy saboter ay canal yoo xamante te ne jëm ci askan bi ngir mën a dund ci askan bi askan boobee nag am nañu mbégte loolu ci ndoxum Touba bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Diakhar fay ba mu ko waxee léegi ak sëriñ bi yàggul waaye Touba am na ci gox yoo xamante ne toog na juróomi at wala sax lu ko ëpp ci robinet yooyu sax ibuwul tey nag fépp a ngi baawaan Moustapha Messere nañ ko moytu bu baax mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu ànd seetaan vidéo bi aimé ko partage. asalaamaaleykum wa rahmatullah patriote cher patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di wax ne maa ngi wax président Ousmane Sonko président Diomaye Faye ministre Cheikh Tidiane Dièye maa ngi leen wax ne nguur si na ngeen ko bàyyi xel nguur si ñuy wax Moustapha Messere na ngeen ko bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel. mi ngi kaas groupe yi ngeen jënd mi ngi kaas ndoxum Touba mi ñëw da koo naqari ndoxum Touba mi tàmbali da koo naqari parce que ci doomi xaraam yi doon saboté Touba ci la bokk te mu ëppoon ci aw làmmiñ mi ngi mi ngi mi ngi kaas groupe yi indi mi ngi kaas ndoxum Touba mi mi ubbi ñeme naa bàyyi ba guddi mu ànd ak samba boy booy groupe yi na ngeen ko bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te damaa jàpp ne Touba ñin fa war a njëkk a génnee bu ñuy génnee ñi ñi génnee dañ leen a yàpp Touba ñi ñuy génnee dañ leen a yàpp Moustapha Mazare ci ñin war a njëkk a génnee Touba ci la bokk bu dee jikko ju bon la ñu xeex parce que góor gu ne leen leen ni xeesal di day jëfi jigéen kooku waroo amoo place Touba beneen bi topp ngeen nekk ci nguur gi lànk ba ñu jënd ay groupe ba ñu taxawu Touba ci ndox mi ñu ñëw tàmbali koo def ndox mi di xelli mu lay naqari yow ab xaj dëgg nga xaj sax gën xaj dëgg nga xaja gën mais gis nga réew mi dañ koy liggéey te gis nga euh, li ñu liggéey nii ku ko saboote ñu lakk sa lu bon lu leer laa la wax ku ko saboote ñu lakk sa bon sa bopp bi mel ne soorool doomi xaraam ay pexem bu antu woon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du accéder pouvoir premier ministre Ousmane Sonko kon ba tay ma nga Cap Manuel ndax it Moustapha Messere mi ngi ni xeeb di ndaw lo xamante amul palto amul place tok muy dox la def ci xolam muy métier wër di yak der ak di saboter di fenn di kàcc di diaboliser wa Pastef wala ñi fété ci parti Pastef ba nek ci Touba di wër ci Serigne Sy wayé nak di wax rek wax jo xamante dara du ko ci lèr ci lolé lay amé tax na ñëwug ndoxu tuuba bile am na ci lu ko metti ba tax na moom daal di nay def vidéom rek boo xam ne viral na ñëpp partagé nañ ko di daal di ñaxtu ñëwug ndoxu Touba bi lan moo ko waral. lolé nak di laaj bo xamanteni ñun lan koy tontu moy nga tejj salamine te delu wat ci rukku ba nga nekkon ndax it nak bu doon mom kessé la touba du mësa am ndox mu neex ndax ñom yeguñu ci bopam ña nga xamanteni ngay xey bëgg ndox guñu songo wala guñu japp wala guñu naan sax wala guñu toggé ñoñe ci bopam sa su nekk ña am luñu jambat am ay nakar jafé jafé yoy nak président Ousmane Sonko mi nga xamanteni moy premier ministre du Sénégal ci ndigalu président Bassir Diomaye Diakhar Faye ak Cheikh Tidiane mi nga xamante moo yor lépp luy ndox ci Sénégal moom daal dinay lijjanti gaaw ay groupe yu baax def jox ko waa tubaa fexe ba ndox moom moomee nga xamante ne ñu ci bari jaaroon nañ ci ginnaaw ba du dox mu doxal ko ndox moomee nag ña féete ca gox yu bari ñoom it ci boppam jot nañ ci ba nag ñi ngi sant di fecc ca kaway ngir rek suñu borom gën a dolli xéewal ca Touba ak réewum Sénégal waaye président Bassirou Diomaye Diakhar fay yéene ba mu am ca Touba ak réew yi wër Touba ak Sénégal lépp yéene yooyu yëpp mën a mattale ba kenn ku ci nekk jot ci sant